liñ mujj wax ci Serigne Touba nag ba àgg ci di wax ne tubaab yi xamul nu ñu ko nettalee sax ndax man digguma ko aw ma jotul di ko diglu waaye liñ ma nettali ca nam ko waxee bëgguma jaar ci baat yi di ci jum waaye nam ko waxee demewut noonu Serigne Touba dégg ngeen Cheikh Abdoul Ahad la mu waxi wax ju leer nañ la ci koor gi mu fi mujj fekk saxbaan tàggooguma ramadaan nuyooguma koo xam ne saxbaan ramadaan ñoo lay ñoo lay nuyu nag ku àgg foofa sa digg sa borom tuuti ne ci mbindeef di la wax rawatina ab tubaab te tubaab yi suñ tubaab xam ngeen ne mosu leen a nangul dara ci ci boppam bañ ko bëggee takkal médaille dafa gàntu bañ ko bëggee dem dem ba ci mujj gi ñu àgg ci ne dem nañ ba xam ne liñ jortoon ci ak liñ amoon liñ liñ bëggoon amut na gis nañ ne mboolem ñiy woote lu baax rawatina suufiyanke yi dañ dañuy dëddu addina ne ci àll bi di lekk eh, ay xobi garab wala ñuy dëddu loolu bu amee àdduna kenn du ko dundal mm-hmm. yow nag gis nañ ne lislaam ji ngay woote ñëpp danañ jub ñëpp danañ tegu ci yoon kenn du tooñ te nit ñi itam adduna si dana defar ndax nit ñi danañ liggéey mm-hmm. kon nag dañ laa bëggoon a jiital ci liñ ñu daa tudd AOF li nga xam ne France moo ko yilifoon mm-hmm. nga jiital lislaam ji yëpp bañ ko waxee sëriñ bi sëriñ bi laaj leen ba xam lu ci seen xalaat ñooña mag ñi rafetlu ko ne ah, loolu de xanaa mbégte la ndax eh, ñoom de ndegam ñoo jortoon ci yow daal dem ba wëlbatikuwaat mm-hmm. wax ne dañ laa bëgg a loolu dana am solo ndax eh, ñoom buñ xasee ba jiital la dañ ci forcé ñëpp Sëriñ Tuubaa nee loolu nag laay bañ ndax yéen ñi ànd ak man de lu ma leen digal ngeen def ko lu ma leen tere ngeen bàyyi ko xam nga loolu lu ko waral mm-hmm. da ànd ak man ngir yàlla ci seen coobare ñoom nag lañ bëgg bu amee. ku ci ànd ak may du doon du doon seen coobare mm-hmm. Mm-hmm. force lay doon mm-hmm. te laa ikraha fi diine daan te inil kaafiruuna illa fi xurur nee na ñi wedd yàlla luñ la wax rek ay wor lañ ca nar kon Sëñ Tuubaa mbiram wees na loolu kon kuy wax na wax ca la nga gëm wax ca dam xam koo xam ne gëmoo tasawuf nga yem ca la nga gëm ndax ñun amuñ jotug di tontonte loolu nit day nekk ci lam nekk gëm lam gëm